Muhammadul Fadlu Muhammadul Fadlu tey ku ko mu fal la ngay fale kii mooy kumala Muhammadul Fadlu mooy tey ku ko mu fan la ngay fale kii mooy saahibul kumala waaye itam bés bi nga xam ne woy juróom wa sëriñ Fàllu Mbàkke moom lañ ko jagleel muy Kazu Rajab di bés bi xam moom lañ koy fàttaliku ba tax nag ni ñuy waree kër kilifa yi ñu teew ci barabu tedd bii di kër sëriñ Maamun eh, fas yéene ko jox rek moom itam dana jafe lool wax ci sa woy jur waaye nag ni ñu ko gisee si ñoom rek wax ci sëriñ lay doon

Cheikh Modou Moustapha Yoro Mbacké taawam bu woote ko taxaw ko 30 ans 70 ba ba 2000 kon kon gis ngeen dimension bi mu àgg léegi xam nga tam fu ne ci àdduna si li àgg fu koy defee kon day mel ne la sëñ Fallu dafa doon sëñ Touba ci 18 safar la ko sëñ Touba fayee ci Kazu Rajab waaw muy parallélisme boo xam ne bu kéemaane la ndax sëñ Touba dafa gore te mën a fay kon loolu eh, bokk na li xam lu mat di fàttali la muy bis boo xam ne nag eh, yu bari da cee daje na ngeen ko xamee ndax anniversaire yu baree bari la ci gàttal rek man ngaa wax ne mooy anniversaire u alquran man ngay wax ne mooy anniversaire julli juróom man ngay wax ne mooy anniversaire sa sa sa sañ ci man ngay wax ne mooy anniversaire sëñ Fallou anniversaire julli juróom mooy ni ngeen ko xam ne al isra wal mi'raj yàlla bi mu ràññaa ne yonante ba yóbbu ko Makka Mukarrama yóbbu ko Jérusalem jóge fa yóbbu ko ca asamaan yi gën a kawe loola mooy isra mooy mooy rañaan gi ca kaw ba muy dellu si la ko jox sëri bi muy julli juróom yàlla ngeen ko fonk islam yëpp bi ko yàlla faratal dafa yónni Jibril mu wàcc suuf fekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye julli rek la ko woo ca kaw teraal ko googu teraanga kon anniversaire bi anniversaire julli la anniversaire alxuraan la ndax ba mu ko yëkkatee ba ca kaw asamaan sa ba mu dem ba jeyee ko alxuraan tudd ne fa awaxee subhaana lazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mooy mu jële ko Makka yóbbu ko a ci asamaan yi gën a kowee fa awxa ila àggee ca kaw la ko sol lam ko sol kon foofa alxuraan la ko sol ak mbóot ma waaw ñu wax ne sol na ko fa ñetti xam-xam xam-xam bu jëkk ba yàlla dafa dafa war ci yonent bi mu xam ne ko muy charia bi al awamir wa nawahi ndigal yi ak tere yi muy julli koor asaka aj màkka sëy ak charia bi ndigal yi ak tere yi kooku boo xam-xam dafa war ci yonent bi mu xam ne ko am beneen xam-xam boo xam ne da koy xamal ñenn ci nit ñi loolu mooy loolu la ñëpp ñoo nekk wàll waaye dafa am ñu ko yàllay xam-xam boo xam ne dafa araam ci yonent bi mu xamal ko kenn diggante ak yàlla rek la moo tax ni mu ko ni mu ko formuler en arabe dafa ne fa awxa ila abdihi maa awxa solo na jaam ba lam ko soloo loolu nag mooy yàlla rek ko xam borom xam-xam yi nag ko nañ ne ñetti xam-xam yooyu la loo xam ne war na ci moom mu xamle ko mooy charia bi loo xam ne dana ko am beneen xam-xam mooy bu muy xamal ñenn ci jàmm yi ak beneen bi mooy loo xam ne xaraam na ci moom mu xamle ko yàlla yonent du ko xam kon anniversaire jullee ngoog anniversaire alquran ngoog anniversaire sañ ci Tuubaa ngoog ba nga xam ne Eh, day wax ne ki sant yàlla ndax ci la ñëw àdduna bu mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa min xadama waajahani yumnu rabbi musaasihan anil mabi an shariba muhammadul fadlu muhammadul fadlu mooy fal fale tey ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy saahibul kumala muhammadul fadlu mooy fal fale tey ku ko mu fan la fale kii mooy saahibul kumala